daan na wax ne alkaande du dara mooy ñeme wax lu kenn ñeme wut a wax sëñ Moustapha ba mu koy wax yàgg na mu ne alkaande du dara lu du ñeme wax lu kenn ñeme wut wax mu ne tabbat ya daal looloo ko indi waaw mu ne ndax abi ja abi lahab daf doon jaay gériye gériyelu wax lu kenn du wax mu ne yàlla wax ko lu mu waxul kenn jeex na ndax yonent bi da wax ba noppi ñépp ne patt moom mu jóg ne ko tabbat la ka yaa muhammad ali hada daawtana di jaay gërëye gërëyelu yonent bi wax ba noppi rek moom mu jóg taxaw abi lahab tabbat laka ya muhammad ali hada da awtana bi ci kersa gi mu sëgg ndeysaan daf fekk daf ko ne yonent bi waxu leen dara daf leen woo ca pénc ma ñoom yëpp ñu toog ñu ne ko loo ñuy doyee mu ne taalaw ila kalimatin sawain baynana wa baynakum an la naabuda illa allah wala nushrika bihi shay'an wala yetaxisa baaduna baadan arbaaban min dunillah lii la leen yonent bi wax kaay leen ñu yemoo ci benn baat kennal yàlla te bañ koo bokkaale bañ a jàpp kenn ci suñ biir def ko yàlla ndax duñu ay yàlla wax ba yeggal mag ñépp noppi abi lahab jóg taxaw ne ko tabbat laka yaa muhammad ali hada daawtana lii rek a sa kàddu yi gàtt yi rek a taxoon nga di ñëwoo woo mu ne ko yonent bi sëgg jibril na cëpp ci kanamam ne ko sa borom nee na bul tontu de ci at ay gone nga gone nga ndax say bàyyi lañ gone bu waxee mag dañ naan gone ga yaruwut te moo la tooñ waaye man mi ko mag fuuf man yàlla bàyyil ma tontul la tabbat yadaa abi lahabin ñu ne déet yonent bi ñaq ci saa si ndax sa bëggu koo wax yàlla ne ko jottaliku soo ko jottaliwul ma dagg sa buumu xol bi loolu la ko yàlla wax la qataana minhu bil yàlla ne ko boo ko jottaliwul ma dagg sa buumu xol bi tàppit waxal mu ne tabbat yada abi lahabi mag ñépp ne déjj di ko déglu ndax arab mu teg ci wa tabba maa naa mu yuuxu mu ne su ca boole wutoon sama alal sax ma tedd waaye maa naa ji rey na ma anhu mu ne waaye am naa tuuti échappatoire bu ma jaar bërëj yàlla ne wamaa kasaba ak la ca trésor ya yàlla ne wamaa kasaba ak la ca trésor ya mu denc ko boole naa ko ci ñu ne lan moo xew mu ne sa yas laa naaran alalam ak moom yépp dana ko jaaroo ca jahannama ëllëg sa yas laa dana ko jaaroo naaran ca safara ñu ne ko ban safara mu ne zaata lahabin bay boromi takk-takk ñu ne fa la yem mu ne déedéet bàyyi leen ma man yàlla taar taar naa wa amraatuhu jabaram boole naa ko ci ñu ne déet yàlla jabar ji lu ci yoonam ummu jamil mu ne xamalatul xatabi moo daan taxan matt yi ci gisu leen ko man yàlla gis naa ko moo daan taxan matt yi ci guddi di ko teg yoon yi yónnant bi di jaar pour fakkastalu ci te ay dëkk la daan doon moo tax mu ne sayasla naaran zaata lahabin wa amraatuhu jabaram sax boole naa ko ci ñu ne ko lu tax mu ne xamaalatul xatabi moo daan dajale matt yi di ko teg ci kaw yoon ak dëgg ya fii jiidiha xablun min masad yàlla ne buum yi mu daan yeewee matt ma soppi naa ko ay chaîne yeenee ko yeewee ko ko sànni ko ca jahannama fii jiidiha xablun min masad moo tax gër yi gër yi lu baaxul te ma wax leen lu gàtt nag Ahmed Khalifa du dem safara de du ko fa du fa dugg ku ko xaar safara doo ko fa gis li ngeen di soxor affaire am la ak alaaji Malick Malick dina ko régler ak moom te Malick da koy baal mu ngeen boo ngeen xam loolu alaaji malik soxorewul kenn alaaji Malick fi mu tolloog maamam maam Abdoulaye Niass dina teg xalu safara ci ci loxol sëtam ay gone ngeen nit day xam luñ ko waxul maam Ablaye Niass ni ko Seydul Xaaji malik fonke Alaaji Abdou Aziz Sy wax ma digg ngeen baal ma rek ma maye Alaaji Abdou Aziz moo wax ma digg fii ci grande mosquée benn ba ci Tiwaawan gannaaw gee la waaye booba xëy na am na ñu ko fekkewut waaye bii moom journée culturelle Cheikh a Ahmada yi la woon fii kaset yaa ngi fi man yi yi siiw laay bëgg di nettali léegi ndax dafa am kilifa yuy wax naan waaw day wax rek rek ñooñu dama leen di ñamal léeg xam ne man du ma ñoom ñooy fen ñoom ñooñu di wax ñooy kàcc waaye man duma ma fen non man maalik dama ko bëgg te yàlla tax Seydul Hadj Malick dama ko bëgg te yàlla tax kenn mënuma koo iñaanee te li ma ci war a am nag dinaa ko am bu ma ci kenn jox dara li may wax xam nga lii may wax ci Maodo ak njabootam laa nuridu minkum jazaan wala shukuran ku ma ci xas ak ku ma ci tagg laa ci yemale yàllaa tax ma di ko def bugguma ci jëf bugguma ci pay ki ma koy defal nag gis na ko xam na ko dégg na ko koo koy Seydul Hadj Malick man kooku laa amal affaire ak njobootam yépp nag koo xam ne nag jubluwoo ca Chérif Ibrahima kooku sa affaire la yow waaye du Chérif Ibrahima te ku ma ci yëg ne jubluwoo ma sa bamba maase na lu ma am boo nangoo dinaa la ko jox te man du ma joxe lu tuuti ah maag Serigne Cheikh yam ah yow tam waxin la rek. man maag ñëpp a yem si Sénégal lambda bi laa bokk de bu leen yaakaar ne <laughs> dafa yor lu dul jaar Sénégal lambda bi laa bokk waaye fii ci grande mosquée ngeen baal ma ah? waaw waaw waaw maa ngi ko bëggoon fàtte de fii ci grande mosquée journée culturelle Cheikh Sidi Ahmed Tidiane keroog yàlla na ko yàlla yërëm euh, Cheikh Barham Diop moo doon jottali. El Hadj Abdou Aziz moo doon waxtaan Cheikhul Hadj Abdou Aziz Barham Diop moo doon jottali maa nga toog nële Barham a ngi toog nii El Hadj Abdou ngi toog nii ci fauteuil bi Barham toog nii ci ay tànkam di yor micro nii di jottali Ousmane pay moo doon ministre de la jeunes et des sports tey mooy directeur de cabinet Abdou Diouf Ousmane Paye mu ngi toog. barham bu alaa jabdu xam nga alaa jabdu moom <laughs> arab yeeg wolof yi da koy jaawale ndax tàmm arab soo alaa jabdu waxee arab barham dugg ci olof yi bu waxee olof barham dugg ci arab yi ndax marocain yi toog alaa jabdu li muy bañ bañ tàccu keroog moo ne waaye tàccu leen barham maa ngi toog kenn nettaliwu ma xam ngeen ni yéen ñëpp si du tàccu rek la bañ keroog moo ne waaye tàccu leen barham waaye applaudisé leen ko ñàpp tàccu mu ne barham jëf ndax nii nga ma jottalee tey géej naa koo am baraam taalibe kan la wax du ngeen naa fekk xanaa boo amee woyof ak mbaax gu day nii ju jottalil Alaaji Abdu Asiis dafa xam ne kilifa am lii may nettali keroog la ko Alaaji Abdu wax sëñ Abdu ne diggante kër Seydul Xaaji Malik ak kër maam Abdoulaye Niass maa ngi gis duma wax nag ka ko doon déey waaye xam naa ko batterie bi la ana bale Cerno maa ngi xam ki ko doon déey waaye duma ko wax am ku ko déey xam la lam tontu nag moom si ñab du moo tax ma xam lam ko wax xam naa daf ko déey ne ko maam Ablaay du sa maam sa baay la ndax maam ab laay la doon wax moom alaa jëb maam Ablaay maam Ablaay maam mu ne fekk am ku wax Seydil Hadji Malick ne ko maam Ablaay mënulaa jur huit ans la la magee Sey maam Ablaay Niass huit ans la magee Seydil Hadji Malick mu ne ko kon mënulaa jur ñépp ne nañ nga bàyyi li ngay wax bàyyi Ablaay mu ne ah wolof day du bàyyi weer ci benn fan waaye day kenn mënumaa tee wax bàyyi Ablaay man Malick ndax maa jàng ci téere yi ñu ne ku gis sa baay te gisoo sa baay sa baay la te baay ablaay ñas day gis na sama baay usmaan ba jëflanteeg moom te man bi ma amee ñaari weer ci sama biiru ndey la sama baay génn àddina kon baay Ablaye baay Ablaye baay Ablaye baay Ablaye Alaaji Abdu nettali lii keroog ba pare ne ma it day Abdu maam Ablaye maam Ablaye maam Ablaye maa ngi toog kenn nettaliwu mu ne maam Ablaye ñas digganteem ak Seydul Xaaji Malik ku ca bëgg a xam dara buñ teeree ca kanamu yàlla dinga ci xam dara keroog lii la ci teg mu ne seen diggante ñoom ñaar ku ci bëgg a xam dara buñ teeree ca kanamu yàlla ëllëg di ci xam dara ndax way juram piir la ngi la Seydi Aji mu ne way juram piir la way juram dëgg la mu ne kon sama maam la kon nañuy wax yu rafet yii idfa bi lati hiya ahsan fa ida alladi baynaka wa baynahu adaawatun ka annahu waliyun xamim waaye nag wa maa yulaqaaha illa alladina sabaru isbir wasbir wa maa yulaqaaha illa alladina sabaru wa maa yulaqaaha ilaa zu xazin xanaa bokk bëggu leen bokk ci zu xazin adim kon isbiru wasbiru leen ca nag wa taqullaha laallakum tuflixun isbiru wasbiru waraabitu wa taqullaha mi noonu rek ngeen ciy def mucc ma ci dégg kenn wax ci seen yoon nekku ci du tee Ahmed Khalifa àjjana la jëm moomu àjjana nag waaye ku am baay bu mel ni Baay Khalifa Ñas xam ngeen bàyyi xalifa xam ngeen ko yéen yéen gone ngeen dinaa ci def waxtaan mook cheikh al islam incha bu tey weesoo dañuy mottali suratu nuur bi su paree àjjuma ni tey ana abu aj ñëw na maam Ablaye amoon na doom bu tudd Cheikh Oumar xam ngeen moo tax ngeen war def ndànk maam Ablaye Niass amoon na doom bu tudd Cheikh Oumar moo fekki woon góor gi euh, euh, ca ca tabanding tafsir maa jéegi xumma ca tabanding waaye def leen ndànk <laughs> ñu bari xamuñ ne maam Ablaye am na doom bu tudd Cheikh ma dem leen ngeen gëstu yéen ñi fa dëkk dëgg la wala du dëgg <laughs> waaw yéen lu ngeen bëgg ci xam nga lu ñu sonnal ñun ñépp nag laay wax Sénégal xam nga lu ñu sonnal bëgg unanimité moo sonnal pouvoir ak opposition moo ñu sonal ñun taalibe yi sëriñ si nag amuñ boobu problème ñoom ndax sëriñ si kenn ci ñoom bëggul mbooloo yàllaa leen nattoo mbooloo waaye soxlawuñ ko ba ci Seydou Hadj Malick bii ñuy waxtaanee dinaa ko wax léegi soxlawuñ mbooloo de bàyyi lële mu am ca Nigéria soxlawu ko yàllaa ko teg ci loxo waaye billaahi soxlawu ko bokk ñoom ñun ñi nga xam ne ku ci tëju ci ñéeg sangoo paanu saafara takki téere naan allahuma ijma li naasa sharqan wa garban bu ñëwee nga dee rek sharqan wa garban loo leen di doyee waaw man li may wax dama ko xam léeg-léeg nit ñoo ne ma chérif dog buy joxe mbooloo laa bëgg ma ne ko looy doye mbooloo si am na ñetti nit kuñ topp nga al ko looy doyee mbooloo ku ñetti nit topp rek nga al looy doyee mbooloo mag ñi li ñu am ci mbooloo yàlla leen ko nattoo ñuy daw di daw di daw di daw ba mbooloo mi ñëw ni rankum ci seen kaw ñu xam ne njobootu yàlla lañ wal xalqu kulluhum mazahirullahi wal xalqu kulluhum iyalullahi ñu jël leen nag fa aawaw wa nasaru waaw da fekk daw nañ ba sës ci miir bi su gis mbooloo mi ñu xam ne alxalqu kulluhum mazahirullahi walxalqu kulluhum iyaalullahi fa aawaw wa nasaru lii mooy mag ñi de mooy El Hadj Malick mooy sëñ Touba Cheikh na Cheikh Saad Bou maam Bu Kunta Ndiassane Limaamu Laay Cheikh al Islam El Hadj Ibrahim ñoom soxlawuñ mbooloo moo tax yàlla jox leen mbooloo ñun ñi ko soxla nag danañ sangu takku xaawu ŋaawu dara. booy génn feem bu ne bi nga ko def joxe sa mbubb ñu meebal la ko nga mel ni màgget moom am quatre vingt te dara dalu la doo waaxu dugg ci sa biir oto ñu naan cheikh bi shérif bi cheikh bi shérif bi nga yaakaar ne yaa ca nekk après ñun li ñu sonal mooy unanimité mënta nekk yàlla mi bind jaam ñi amu ko waaye ñàkk koom nag moom ci coobareem la moom la neex amu ko yàlla amul unanimité amu ko tey àddina bi ñiy saaga yàlla ñoo ëpp ñi koy jaamu ñi koy jaamu ñi sellal ñu tuuti lañ ci biir ñiy jaamu yàlla moo tax yonent bi toog ba mu yàgg ne annaasu kulluhum halka illa al wal aalimuuna kulluhum halka illa al aamiluuna wal aamiluuna kulluhum wal muxlisuuna ala xatarin adim yonent bi ne ni ñépp alku ne ñépp kenn génnu ci nit ñépp bokk nañ alku mu ne ba mu des boroom xam-xam yi mu ne waaye boroom xam-xam yépp alku ba mu des ñiy jëfee seen xam mu ne waaye ñiy jëfee seen xam-xam ñépp alku des ñay sellal mu ne waaye ñay sellal ñu ngi ci danger xamuñ yàlla nangu na wala nanguwut mooy dëgg yonent bi du waxantu te mooy dëgg yow mën nga naafila ba bët set kocc koccal bi bët set waqaf ba guddi gi jeex tudd yàlla ba say bët dem nga xëy dem ca jàkka ja julli fajar wasifa ñëw naan tuuti kafe ne xaaral ma noppul yàlla fekk la fa ne la nanguwuma ci tus loo ci mën dara nga ci mënul te bu ko neexee tuuti rek la lay sanctionné mooy teewlu woo ma tuuti rek la lay sanctionné mooy teewlu woo ma wala mu xool la ba mu yàgg ne sama jëmm ji taxut am na loo bëggoon moo tax demal ak loola <laughs> yàlla yombut de waaw mag ñii nga xam ne dañ gedd àddina bàyyi àddina ak ñim nekk ci seen loxo nekk ak yàlla ba yàlla gërëm leen tàggat mu tàggat teg ko ci seen loxo xale yi tuuti mën nañu wax ba mag ñi ñàkk mënul nekk ñun unanimité moo ñu sonal yàlla mi bind jaam ñi amu ko waaye moom ci coobareem la ko ñàkkee ku ko bëggatee am da ngay sonn sëñ Koso Gànnaar a ngi nii këram rahmatullah alayhi wa radiyallahu sëñ Koso Gànnaar Mbàkke ñoo jéllu dëkk na ñaar fukki ak benn mu door a génn àddina mosuma ko gis du ci oto du ci muy dox lu dul mu ngi jukki alquran wa ma naa illa bi ma alim na bokk ak Cheikh Ibrahima Sall oto euh, avion ñuy dem umra 98 Cheikh Ibrahima ma nettali ci suñ conférence bi fii booba gàmm gi conférence la woon ci buntu cité bi ñëpp a ngi toog Cheikh Ibrahima nettali mu ne tey mbégte mi ma am suñ koso gànnaar bii ma dendee keroog ñoom ñaar ñoo dend nii ngeen dendee yéen ñaar mu ne ndax nii lañ dendee ci avion bi mais waxuñu ma moom bi jidda ndax jukki bu jeex mu jël beneen te bëggoon naa waxtaan ak moom moom mu ngi ci jukkee maa ngi ci sama kurus tey yàlla dajale ñu fii kon Chérif Ibrahima jërëjëf yow mi fexe ba ma gisanteeg sëñ koso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 mooy ñi mujje ñëw te amuñ fuñ installé nii la ko daan waxee ci gàmm gi Cheikh Ibrahima da daan ree ba tësi ci suuf yii moo neex yii moo neex a nettali te sëñ koso gànnaar bi woy juram euh, ndaamal daaru tool yi mu amoon ca Tiwaawoon su ko beyaan ba mu ñor dafay wax taalibe yi ne leen bu leen ko yenn mukk di ma ko indil njaareem yebal joxal leen ma ko Abdou Aziz alaaji Abdou Aziz aatumaan ana mos naa leen fii wax ñoom dee leen dajale seen hàddiyee yi du boole ci dara di ko yóbbul sëñ koso loolaa taxoon ma di ko def ma ne comme mënumaa fay loola bàyyam doon defal alaaji Abdou Aziz te man may taalibee sëñ Abdou war naa yéen ngeen di dajale aslëf may jël sama aslëf di ci teg ngeen yóbbul ko sëñ koso def naa ko ba tàyyi sëñ ko sa këram a ngi nii booy turne rek jàkkaarloo këram man day lu rafet lii laa xam lu rafet lii ci lay dox lu rafet lii ci lay wax waaye kenn duma dégg mukk ci safaan ak wax lu bon taluma ko nag dëgg dëgg taluma ko kon ñun it nag bu ko ci kenn tal yal ñu yàlla defal sutura ñu bëgg cheikh bi nga baal maaq téye naa la fi te xaw ma am nga ngant wala bëgg nga yeeweeku wala yooyu yëpp maa ngi ciy jéggalu waaw su ko defee